Euh, sëñ bi nuyu naa la. oui maa ngi lay ziar soxna si. yaa ci jàmm naka la. yéen daal ñi nga laa tudd. yéen daal ñuy diggante ki nga xam ne moo di Balla Gaye Boy mooy sa mbër. waaw ginnaaw sant yàlla julli ci yonent bi di ñaari waajur di nuyu waa làmb di la nuyu yow di nuyu waa wax ne combat boobu nga ñu laaj dañ wax ci ndax làmb ju neex daal. Hmm. kan mooy sa si ñoom ñaar. waaw ñoom ñaar ñi awma ci mbër nag waaye li may wax ni ñoom ñaar ñëpp xam nañ ko ndax euh, Balla Gaye yaakaar naa topp naa ko mu dégg daal Boy Niang itam topp naa ko moom dégg daal ndax Boy Niang sama sama keppaar la juddoo quoi Pikine. Hmm. kan nga ëpp ki ngay seetaan Balla Gaye wala Boy Niang. non ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk bi ngay mbapat laa la naa la mbapat Balla seetaan naa ko mbapat euh, Medina Rëbës seetaan naa ko mbapatam Mbaye Samb seetaan naa ko mbapatam Père Birahim Ndiaye ba kii itam noonu Boy Niang it noonu Boy Niang seetaan na ko mbapat fii yëpp ba ci tournoi Ndeye Ndiaye tey seen bi mu mujj jël foofu la dégg daal moom Mm. d' accord ñaa Niang dugg na fi nga xamante ni moo di Guédiawaye ñaata victoire la fa am ak ñaata défaite la fa am. ah Boy Niang su ma juumalee Lac de la fa bëreel Mbës Aykon Sa Kajoor waaw ñooñu la fa bëreel yaakaar naa su ma juumalee daal waaw ñooñu la bëreel Guédiawaye yàlla dogal mu daan ñëpp. la dëgër rek ko fa daan daal. la dëgër rek ko fa daan daal. bi naa la. waaw ñu ngi lay fay soxna si. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci bu baax. tur bi naka la. maam Thierno la. maam ñuy waxtaanee diggante ki nga xamante ne moo di Balla Gaye Boy Niang kan mooy sa mbër. man Boy Niang mooy waaw mais lamb ji dina neex trop ndax ñaari mbër yi entraînement entraînement bu wér péng démb open press ba dem nan fa mais gis nan suñu mbër mi ci état de forme bu baax a baax a baax a baax am nan yaakaar ne lamb ji bu ñëwee rek li entraînement den koy exploité quoi waaw di ñaan yàlla nag mu may ñu ndam yàlla mi nga xam ne moo am ndam mu may ñu ndam ndax maanaam lamb ji li ñu ci war lépp def nan ko waaw bu nekkee côté mystique waaw ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax bu nekkee tam maanaam maanaam côté doole yooyu yëpp maanaam pare nañ ci daal nii daal li des moom ci loxoy suñu borom rek. d'accord euh, Boy Niang dugg na fi nga xamante ne ni moo di Pikine ñaata victoire astafurlaay Guédiawaye ñaata victoire ñaata défaite. ah non ñun moom daanaka am Boy Niang ñun bi ñu ko yàggee di siifur yàggoo trop dugg na fa lim naa dem faa dugg def fa aliment démarrage. ñaata victoire la fa am. lim fa ci victoire bari na. non pour l'instant ni moom eh, xamu ma ko quoi. waaw pour l'instant yi xaw mais li fa li fa dugg li fa def daal bari na trop trop trop waaw. xam naa nag waa ji nag moom eh, lim naa mooy sunu aliment de eh, finition waaw moo ci des xam naa moom moom eh, moom dañ koy boole ci rek yaa ma gën a xam. waaw lim bi mat merci beaucoup. ok waaw. naa la. waaw ñoo ngi lay siyaar. yaa ngi ci jàmm. baax a baax. bi la. Dame Diop la. Dame Diop diggante Balla Gaye Boy Niang kan mooy sa mbër. man Boy Niang mooy sama mbër 100 pour 100 Pikine la waaw mooy sama mbër. d'accord tey ñuy waxtaanee ki nga xamante ni moo di Boy Niang dugg na fi nga xamante ni moo di Guédiawaye ñaata victoire ñaata défaite. ah bo bari de moom wax dëgg si yàlla moom. man ak ban mag niñ def rakk rek la ñu bëgg def mag loolu foofu doy na sëkk ah incha allah te mooy am da démb dem nañ open de presse bi mais Boy Niang doy nañu wax dëgg si yàlla wax dëgg si liggéey na lépp moom pare na ci moom waa ñu ngi koy ñaanal rek ndam te lim lim lim ñu defaloon si contre contre Tapha Tine ak Lac de Guiers moom bëgguñu boobu waaw Balla Gaye moom Boy Niang daa war a ñëw rek bëre bëre bi daan daan bi ñu ñëw ñibbi yëngal Pikine ba mu yëngatu loolu rek la ñuy ñaan ñu ngi koy ñaanal nag saa ñu ngi ñun moom ay ay jullit lañ te chaque buñ jullee ñu ngi koy ñaanal ndax borom baax la wax dëgg si yàlla xol bu rafet la yor. Boy ñaar bi mu duggee Pikine ba tey waxoo ma ñaata victoire la fa am de. bi mu duggee Géejawaay. Ah, waaw ah, bi mu duggee bi mu duggee Géejawaay man ñooñu xam nga rek mais am na fa victoire moom wax dëgg si yàlla ah? non xam ab lii moom xool lii moom. personne yi mu bëreel mais ñaata ñaata victoire nga jàpp. ñaata victoire waaw victoire moom jàpp ma wax dëgg si àll waaw jàpp ma ko mais moom mbër bu ma neex la waaw mbër ma neex la moom boo déggee moom moom kombaam rek moom rek laay sonn wax dëgg si àll waaw damay dem si wut léppam mooy loolu. merci beaucoup. waaw jërëjëf. naa la. maa lay fay. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm ba. bi la. Matar Cissé. tey ñuy waxtaanee diggante ki nga xamante ni moo di Balla Gaye Boy Niang kan moo seen Balla Gaye Boy Niang man Boy Niang mooy sama mbër waaw. d'accord Boy dugg na fi nga xamante ni moo di Géejawaay mën nga ñu wax ñaata victoire la fa am ñaata défaite. non am na fa 4 victoire defe naa mais amugu fa défaite. waaw waaw. d'accord kan ak kan la fa daan. waaw daan na fa Saa Kajoor daan les deux daan guy gi ak Saa Thiès waaw après Balla moo des incha allah waaw. d'accord naka ngeen di waajee combat bi. combat bi ni daan waajee combat yi rek comme combat yëpp rek làmb la de waaw incha allah làmb la nag làmb ju neex a neex waaw mais doonu làmb ju yomb nag ndax supporter yi booy ñaalan mais xam na ne du làmb du yomb waaw ndax Balla Gaye ku ko xam-xam ne champion la waaw mbër la moo xam ne nii maanaam du ñeexu ñebe daal waaw man moom booy ñaala non victoire bi booy la gën a arrangé waaw jàpp naa ne booy la gën a arrangé loolu mooy yoonu làmb parce que booy ñaa bu daaneel Balla làmb naa maat beneen jàngat mais Balla Gaye bu daanee booy ñaa fa mu nekkoon lay nekk ba léegi rek waaw instant yi Boy moo war a prouver kon jàpp naa ne victoire Boy Niang la gën a arrangé waaw waaw. d'accord merci beaucoup. merci ok merci. sëñ bi naa la. waaw ah, siyaar na la bu baax. yaa ci jàmm. yaa ngi ci bu baax. tur la. Ah, sëñ Mbaye. Mbacke. yëlëb yëlëb. d'accord yëlëb Boy Niang Balla Gaye kan mooy sa mbor. Ah, man Pikine laa dëkk. Pikine laa dëkk waaw Boy Niang mooy sama mbër. Boy Niang dugg na Guédiawaye mën nga ñu wax ñaata victoire la fa am ñaata défaite. bari na Boy Niang kenn daanu ko Guédiawaye kenn daanu ko Guédiawaye di fa na fa Boy gis naa fa quatre victoire am daal di fa am daal. kan ak de ci la bokk ak les deux ak guy gi guy gi ci la bokk tamit ak saa Kajoor tamit ci la bokk. waaw ñooñu daal gis naa daan na leen fa daal. waaw naka ngeen ma. ñu pare nekk suñ bopp rek. waaw di ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam. loolu am yàlla suñu borom moo yor ndam quoi yàlla na ko yàlla may ndam. am monsieur mooy xale quoi. ñëw si moromam. waaw loolu koy ñaanal ñun ñu ngi si ginnaawam. waaw bii lu mën di doon dañuy dagg dugg incha allah.